jëf l'observateur mi ngi xëy tooy xepp ak i ronxañ Bintu Kanté moo fa jooy jëkkëram yéen xët mu njëkku yéenekaay bi Ibrahima Diop di tailleur bi ñu rey bërki démb ca Tamba cib jàppante bu amoon ci digg waa PUR ak waa Benno Bokk Yaakaar moom Ibrahima Diop jabaram la waa L'Observateur seeti woon nee na leen ñi rey sama jëkkër nañu xam ne rey nañu sama yaakaar li ma gënaloon moo di Ibrahima Diop bu génne ci kër gi buy duggaat ci kër gi doxalaat tànk boppam bu duggaat ci kër gi musuma woon a bëgg musuma woon a jàpp ne dinañ jël sama jëkkër di ko teg ci jaag di ma indilaat ci kër gi Mariama Togo Gindo mi jur ndem si Yàlla Ibrahima Diop ne ci L'Observateur ñi rey sama doom paaka lañu ko jëm ñetti yoon ci digg gi jam koy te ci loos wi tiim naa ko deret ji ko ma bëggoon laa gisee ne li am am na bu noppi Ibrahima Diop faatu na ndem si yàlla Ibrahima Diop yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne jébbal nañu ko boromam démb ci talaata ji keneen ku faatu ca Tamba mu di Cheikh Touré ñu gënoon koo xam ci match watab waa pur bi ñu ne moo ko fiir waa ji ko doon dawal gendarmerie teg na ko loxo ba noppi nangu nañu oto ba tëye source waa nañu ñaari fan ginnaaw la xewoon ca Tamba enquête ba ñu cee def am na lu mu feeñalagum am na ci ñaari nit yu ñu ci jàpp yoo xam ne ci vidéo yi ca lañ leen xàmmee ñoom sax dañoo amoon ni problème ak justice dawalkati jakarta yu bëri ak i responsable yi benn bokk yaakaar yéenekaay bi nee nañu teg nañu leen loxo source waa nañu ci enquête ba benn chauffeur bi doon dawal bisu journaliste yi ab agent la buy liggéey ca Mourchid TV libération mel ne ku naan ko déet chauffeur bi fiir Cheikh Touré jaar ci kawam jàll chauffeur boobe mooy liggéey Mourchid TV moo ko waxal boppam nangu it li ñu koy toppee ca kanamu enquête kat ya enquête baak la mu waneegum libé wan nañu ko ci xëta bu njëkk lu mat ñaar fukki membre ak juróom-ñaar yu pur ña nga ca gendarmerie ak ca police ñu tëyee service de sécurité bu pur yi jëfandikoo ci ñoom ci ay ngànnaay mën naa tukkal àdduna léegi ko nañu la xewoon ca Tamba ba ñaari nit faatu ci waa pur la ci procureur bi tuumal yéenekaay bi dollul ñu ci ciy xibaar nañu ngir bañ ji yàgg musiba ju ne jàmmoon ca Tambacounda di amaat ci campagne bi moo waral léegi police ak gendarmerie ñoo yore sécurité candidat yi réew mi quotidien xëy dëggal xibaar bi ci xëtamu njëkk bind ko ci mbind gendarmerie ñooy protéger candidat yi Sud Quotidien nañu Aly Ngouille Ndiaye jël na relais bi sécurité ak bu candidat yi ci ndoddal ministre intérieur ca la gàlle léegi Le Quotidien nañu Aly Ngouille Ndiaye ministre intérieur blindé na juróomi candidat yi ci campagne électorale bi démb la def ak communiqué moom ministre intérieur bind ci communiqué ba ne sécurité candidat yi léegi mi gendarmerie vox populi nañu milice yi doon topp candidat yi bu leen neexee di leen topp ba léegi waaye santu ñu leen dara defloowuñu leen dara mayetuñu leen sax ñuy yor ay ngànnaay wala ñuy sol ay tenue militaire kenn ci candidat yi mu di Idrissa Seck Vox Populi mi ngi ñuy xamal ci xëta bu njëkk ne rafetlu na dogal bi ministre intérieur jël jëm ci sàmmuloo candidat yi takk der yi anki dina mel ne ku naan ñu ajjam lii mooy médecin après l'enterrement réaction tardive maanaam jaan matt la ba dem nga topp ci watit wa di dóor yi ci géew bi di xëccoo bopp réewum Sénégal ñoo ngi dóorante ci kawi kàddu ubbi l'observateur Idrissa Seck cokkaas na Macky Sall ba xolam sedd nee na li may sàkku ci dafay jugee ci bopp réewum Sénégal Macky Sall ak i kàddu yu mu yëkkati ca kaw lax mi ngi ci xët mu njëkk l'Observateur candidat benn Bokk Yaakaar bi di Macky Sall nee na ci lu yàggatul dara di ngeen dégg ay candidat yu déclaré forfait ndax mënatuñu mititu ci taafantaloo journal su A nañu waaye kenn du Amadou Ba ministre économie finance ak plan ne moom it ma ngay campagne lu rëy visite de proximité la doon def démb ca chef de village yeeg imam yeeg délégué de quartier yu Cambérène fa la waxee moom Amadou Ba ne ñiy laaj réew mi di génne ay ngànnaay bés bu ngeen leen falee dañu ñuy rey